sëriñ Bassirou Seck la dëkk Touba Koungheul waaw jëwriñu sëñ Moustapha Mohamed fii ci Koungheul ak li ko wër waaw. bis bi de nañuy sant yàlla bu baax. ginnaaw bi ñu mayee ñu fekkee ko ak jàmm ci taxaw gi nga xam ne sunu waajur wu tedd bi mi ngi koy taxaw bis bi nga xam ne fii ci Koungheul yàlla dogal na moom mooy ubbi Eh, safar yi ci waajtaayu 18 eh, safar bi muy lu ama am solo moom nag ci pastéefam ak eh, bëgg lu baaxam moo tax ba bokki taalibe yi yëpp jullit yëpp a ngi fi daje di ko di ko di ko taxawule bis bi muy lu ama am solo waaw waaw déedéet moom euh, at bu ne fii lañ koy fii lay dafay am te it yàlla dafay dogal mm, moom moo koy njëkkee euh, buñ fi jógee it bis euh, ñu bari dana ñuy def ay safar ci dëkk bi waaye nag moom yàlla jagleel na ko cërub daal safar yi ci moom lay ubbee ci ci ci Koungheul fii muy lu am solo <laughs> waaw bis bi ndax borom Touba miñ koy defal dafa doonoon ko fonk alxuraan lool lépp lu muy defit ci alxuraan lay tege lu muy waxit ci alxuraan lay tege kon looloo tax ba lépp luñ koy defalit eh, ci alxuraan lañ koy teg moom lañ cay jiital moo tax soxna si noonu la ko defee biñ xëyee tey ñu njëkkee jàngum alxuraan mi eh, kilifa diine yi ci koñ beeg daara yi yëpp dajee fi ñu daal di fi jàng kaamil bi ñu noppee ñaanal ay waajuram ay kilifaam yëpp ak ñi nga xam ne ay wóllëreem lañ yëpp mu ñaanal leen yéene leen ci kaamil bi ak jullit yëpp biñ noppee nag doog a dugg ci yeneen liggéey yi. waaw Euh, ñaare tamit euh, waxtu wi ñu tollu xéewal di waaja noppi muy añ yi suñu noppee rek dañuy daal di tàbbi ci ngont li daal di tàmbali njàngum xasida mi muy doon ngont lu lu neex incha allah. waaw li ñuy tëjee rek mooy di ñaan suñ borom màggal gi ñu jub muy 18 safar mu mu ubbil ñu buntu xéewal yi yëpp ba euh, yéene ji am yëpp ñu mën koo matale màgg di ñaanal képp ku bëgg màggale it suñ borom may la euh, wërsëg woo màggalee may la yit xéewal yoo def ci màggal gi waaye may ñu jàmm tamit ñu dem ak jàmm ñibbisi ak jàmm di ñaanit eh, barab bi bis bi kep ko fi tew yalla nga fi yàgga tew and ak wér ak wërsëgu yaato yaatu te lepp luñ ci def suñ borom nangul ñuko borom Tuuba miñ koy defalit mu nangul ñu jëf ji Assalamualaikum ah 18 safar bi day ñu nuyoo baax day siyaare 18 safar bi moom li ko waral mooy waajal màggal ak Serigne Touba gi rek. Eh, kon nag fii eh, ci Bamba Modou kan bi wala kan moo ko taxawal. ajaratu Saf Gueye. Saf Gueye. Saf Gueye Saf Gueye Saf Gueye. waaw ajaratu Saf Gueye. moom taxawal ak si ak moom. waaw waaw. Eh, tey ñu fekk la fii lan ngay te lan ngeen liggéey nii. liggéey bi day ñoo ci rek ngi sant bu rek tey ziare sant Adjatou Saf Gueye bu baax nag moom taxawal bis bu ah, bi di ci bégal waajuram bu baax wi di ci bégal Serigne Touba di ñu ci bu baax ñu koy sant bu baax ba ñaanal sama borom yàlla yàggal ko barke Serigne Bamba te lépp. bàjjen lah? waaw Sophie waaw moom moo taxawal bi waaw waa koñ mu fekk si waañ bi euh, soxna bi ñu ngi lay nuyu. maa lay fay maa leen di ziar. ah tur la. Awasi. Awasi Awasi kon tey yow ñu fekk si waañ bi tey noo gisee waañ bi. wañ bi dé xumb na neex na ta barké na tamit maam Safra jaral nañu ko. Eh, kon wañ bi tay lan moko waral. tay mam mo mo ayé safaram gi tay la. Ah, kon mam 31. mo ayé wajal di ci safar. mo di ci safar wa mom sax ané da kay wajal wala ren sax ané da koy wajal at bu jot dàq benen at. Ah, ta ñu ñaan tamit bu déwé né mu dàq ren. kon nak no mëna ñaanal mam mam kay ñu koy ñaanal mu yàgg fi guddu fan ak wér gi yaram ndax uuf na njabootam uuf njabootu jambur ñepp lay uuf suuf kon nak tay wañ bi dara manki dara manki wul wax dëgg yalla ñepp ngi ci liggey bi ñepp mu ngi ci liggey bi lepp jàmm wax dëgg yalla ñaata mën moo fi nekk ah mën yi de moom bari na moom mën añi moom ñeenti mën lañ tek yu réer yi tamit ñaar tegagum ne ñaar waaw ok waaw jërëjëf kon ñu ngi kontaan waaw nit ñaa ngi ni di tey vermicelle yi ngi nii fu mu toll nii macha allah ñu commencé nañ ko si bisimilah yal nañ ko yeggali ci alhamdullilah rabbil alamin wa Thank you. juróomi kaamil daal wàcce nañ ko fi. kon lim bi mu ngi toll si juróomi kaamil juróomi kaamil yooyu moom ngay wàccee chaque année wala chaque at bi nga xamante moom koy defee. waaw wax dëgg ren moom la gën a yokk moom daana am waaye ren la gën a yokk ren ñu wàccee moom ñu bari ba dañ maa woo na ma wàcceel nañ la wàcc nañ fi waaye ñu bari woo nañ ma na wàcceel nañ la fi ñu nekk loolu moo tax ma juróomi kaamil ti ñu ma jot a gis. maanaam tey mbooloo mi fi nekk nag si day ñay kàddu pour nga sant leen. di leen sant bu baax rek di leen gërëm ndax man nag Koungheul moo ma leen a fay wala muy safaan waaye man bànneex laa fi nekk ndax man ñëpp ma bëgg wóor na Sëriñ Tuubaa Mbàkke ñëpp ma bëgg nii nga ko gisee nii nit ñëwaguñu sax taw tax waaye bu ñu tawee bu du woon kër gi day kon maa ngi sant yàlla di leen gërëm bu baax di sant ñëpp nag dëkk bi nag ñëpp laa sant amul kii amul kaa. loolu nag li koy waral rek bu ñëwee ci kër gi fekk nii ci mbooloo mu bëree bari euh, même si base bi fekk ni fa ay mbooloo waañ bi tamit ñu fekk fa ay cin yu bëri te doy loolu moom euh, daal dina wane firnde boobu. di di métti di ñoom ñoom itam wax dëgg daa métti ndax xam nga ne ci suba ba léegi mu ngi taw kaamir bi mu paree nag commencé taw bi di taw waaye teewul leen dara ñu ngi seen togg ñu ngi togg nañ ko war a toggi wax dëgg yàlla. di ñaan mu sotti ci jamm ak salam commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim yalla nañ ko yegge ci alhamdulilahi rabbil alamin di sant ku ngel gep nak di sant sama mbokk yep di sant mboolam dal amul julit amul ku julit kuy julit ñew na fi ku julit ñew na fi te lool mom wax dëgg mënuma leen ci fay ak lu ma mo a def rek mënuma mënuma leen fay ñepp ci japp ñepp ci japp japp nañ ci seen alal japp nañ ci seen doole di leen sant bu baax a baax di leen gëreem bu baax a baax ki tok sama rek la ñoo bokk ndey ak baye ñoo bokk bis bi kon ñu ngi fii ñoom jàpp nañ ci bi euh, jàpp nañ ci bis bu baax a baax a baax jàpp nañ ci bis bu baax a baax ndax lépp ñoom dañoo dolli rek ku ñëw da ngaa dolli waaye lépp ñoo ko defar ba mu egg mu egg maa ngi sama rakk ji ñoo bokk ndey ak baay moo def lii ñoo commencé waaye ñoom ñoo yeggale ñoo def lépp wax dëgg yàlla wax waa dëkk bi yëpp ñëpp daal laa gërëm rek li ma la wax rek gërëm naa ñëpp daal amul kii amul kaa ndax boo limee rek dana am loo wax dana am loo dëkk dëkkandoo yi man mënu leen a fay bu ma nekk ci bànneex ña nga ca bu ma nekk ci leen ñu ngi ci kon ñëpp laa gërëm ndax bu ma nee waxee kenn dana am ñoo xam ne ma leen mën a wax kon gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp